a r t l e s i o man maa ngi tudd Modou Amar don délégué de quartier cité Mor Mati Sarr fii ci Dalifort tay ji nak daño ñëwoon commencé set setal bi di and ak xalé yi ñi ngi wër quartier bi di di comme ni ko président waxay ñu ngi ci sante population bi yépp wax dëgg yàlla xale itam ñu ngi leen di sant gërëm leen jàmbaar lañu itam ah ñi nga xam ne ni nag itam sàmm suñu gox itam ñoom itam ñu ngi ànd ak ñun ndax ñoom itam ci ci dëkk ci dëkk bi lañu bokk ku sàmm sa gox nag ku ko ku la ko baleel itam da ko da koy sant ñu ngi ci liggéey bi bu baax ñu ngi sant itam Abdou Samad mi nga xam ne moo jitee sàmm sa gox sonn na ci lool te mi ngi dox ak jamono bo ba léegi waaw di leen xamal daal dëgg la nag set setal al lol, lol waaye bañ tilima la gën lol la kon ñu ni nañ gor bu ñu sétalé ba pare ñu baña tilimal wax deug yalla ñi yore mbalit mi ñi ngi leen di gërëm biis bu yalla sak auto bi day ñu kon nak bu sétalé amé rek ci sunu sunu saganté la waaw ndax chaque jour auto ba ngi ñew dañu léeg-léeg sax dañu ñew deux fois kon nak ñu ko ngi ñaax jigéen ñi surtout ñom yoré mbiri mbalit ñu dajalé mbalit ci seen biir kër bu auto bi ñewé ñu touriko te bañ ko bàyyi ci mbedd mi muy traîner ndax loolu itam amul njëriñ te dañu def ñuy sonal rek ndax koñ bu set dafa rafet ku ko gis dafay bëgg a dëkk te bu boobaa itam bu ñu gërëm itam waa koñ bi la ñuy wax ne ah jigéen ñi koñ boobu de ay jàmbaar lañ seen koñ dafa set wecc bu ko defee ñu mën koo tiitaroo ñun ñu góor ñi waaye nag bàyyi nettoyé tey bu subaa nga tilimal loolu amul sens ngeen fexe nag ngeen moytu tilimal bi te nettoyé ba mu set ndax set mooy wir ku setul doo wir loolu li dak wax de la ndax feebar dafa metti li topp ci feebar dafa metti ay ordonnance ay nangam ak nangam ak nangam kon nag nga bañ a tilimal ba bañ a feebar gën fuuf li initiative bu rafet la man de duma politicien waaye ni ni mu def doxe nii lu ma neex la ndax koñ bi ak koñ yëpp bu ñëpp setee bu boobaa feebar dana sori kon nag loolu loolu moom ñu ngi ci kontaan lool kontaan ci président de la république. man la Ibrahima Lay dëkk Touba Seras ñu di taxawu les quatre quartiers de Dalifort waaw ñu ngi ci am kontaante bu baax di nuyu président di ko sant di ko gërëm di ko wax na ko set mooy lépp kon bu ci woowee waario mi war nañ ko ci a fekk si ci loolu mu ñu woo nag ñun jeunesse bi. ci la ñu jug ñëw fekk si ko ci jàppale ko ci kon ñu ngi ànd ak moom ci lépp loo xam ne mi ngi koy def ngir réew mi di njariñu réew mi ñu jeunesse bi ñu ngi ànd ak moom ci loolu di wax ni aussi dañoo taxawal ànd taxaw suñu gox ci biir Dalifort ñu nekk ay liggéeykat ngir taxaw suñu gox taxaw suñu gox nag li ci nekk dafa bari mooy lépp loo xam ne am na ci beneen gox te war a am ci gox bi ñu def la tout ba mu am ci gox ba mu am ci Dalifort ñu ngi nuyu nag président bi nga xamante ni moom moo am initiative bi woo woo ñu ci ñu fekk ko ci parce que moom fekk na sax ñun ñu nekk ci loolu waaye nag dañu daf daf ñu soññi. waaw kon ñuy xaman ne rek ñun ànd taxaw suñu gox ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ci gox bi di liggéey lépp lu ñu war a liggéey di ànd ak waa waa groupe bi yëpp nekk ci suñu liggéey. di ci def lepp lu ñu mën di ci def suñu kéem tolluwaay kattan. waaw parce que dañ doon def chaque fois Dalifort euh, numéro 1 mën naa ni dalifor numéro 1 laay wax parce que dafa am dalifor dafa nekk benn gox boo xam ne dafa jiitu ci biir dëkk bi lépp nag lu yeneen gox yi am di pavage yi def nañ ko dalifor def nañ ko biir dalifor mu desoon nag daru Salaam ak Touba Seras ak Cité Présidence ak Mor Mati Sarr ñun jeunes quartier boobu nag ñun ñoo jóg ni li am ci yeneen quartier yi ci Dalifort dafa war a am suñuy quartier parce que soxla nañ ko ci la gars yi di interpeller Moussa le maire pour mu jàppale ñu ci loolu pour loolu taxaw fi ñu ngi koy sant di ko nag ndax am na ndorteel ñu ngi koy sant di ko parce que am na ndorteel parce que gis nañu temps yi chantier mi ngi dox xam nga lu ñu amul woon ñu ngi koy commencé am mais dañ koy ñaax mu gën ñu dolli comme ni cité mel.

nga ñëw jàppale ASC bi ci tous les côtés parce que manqué na ay moyens de trop ñu bëggoon nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi di yeewoo ci biir gox bi ñu ñu taxawu ASC bi bu baax a baax baax ndax dana am lu bari loo xam ne ndaw ñi dinañ ko mën a def ci gox bi bu boobaa parce que dañuy gis seen bopp ci gox bi te ay ndaw bu ñu gisee seen bopp ci gox bi rek lépp loo xam ne war nañ koo def leen jéem a def la Touba def ko ci gox bi kon ñu ngi leen di sant yéen tamit di leen gërëm di rafetlu sa teewaay bu baax

dama dama fi taxawal di sama kàddu yi may yëkkati ñoom ñëpp ba ci Astou dafa am xew bàjjen la Kumba Ja bàjjen la bàjjen yooyu yëpp ñoo bokk même cachet bi mais dafa génn nag am fu mu dem ñu koy jaarale ci loxo yi suñu chef de quartier Pamar ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax a dëgg yàlla ndax moom lañ tànn suñu gox te gisaguñ dara lu naqari ci moom donc tubaab di kii tamit ñu ko waxee chef de fee <laughs> Touba Seras Daaru Salaam quartier ma Mati Sarr cité présidence ba déggoo dëgg yàlla benn bopp la amul luy metti ak luy sedd ñun ñëpp mburu faf ka fëriñ kon dañuy sant rek bu leen sant bu baax a baax ndax ku sant doomu aadama doon sant yàlla suñu borom mais kontaan nañ ci yéen bu baax doonte xame bi yàggagul waaye am nañu mbégte bu baax ci yéen ndax dëgg nettoyé lu waral bale bi macha allah lépp nag ci Sonko ndax dëgg yàlla ba mu ñëwee ba tey dëkk bi set na sell set ci la lépp xaj set ci la lépp xaj ndax boo wéerulee wéer la woo du sotti di nga wéer set moo ëmb lépp santé lépp parce que santé bi ma nga ne tey yooyu yëpp dañ fay nekk ñu dañuy xëy foofu di fa def suñu conseil bi ñuy def chaque lundi ak euh, vendredi mais set dafa ëmb lépp lépp daal dañ koy ñaanal rek dëgg yàlla mu yàgg fi loolu itam ndax ba mu fi commencé ba léegi dëkk bi set na macha allah daal. si tund mbal bi mooy set setal bi xanaa ñu gën a góorgóorlu rek jàpp ñun ñëpp ñuy génn tey suba rek moom nañu wax na ñëpp génn jigéen ñi nañu surtout jigéen yi surtout jigéen ñi na ñëpp di génn ndax seet da nga koy sa kër tamit doo génn na ñëpp di génn waaye jigéen ñi sama classe gépp soo doon wootee xaalis moom boo wootee euh, nu ñu ko waxee 2 heures balaa 3 heures ñëpp ñëw. jigéen ñi moom loolu seen seen seen fadu la ah kon ñu woo waa Dalifort yëpp euh, surtout ma tamit soxna Mame Marème moom waaw soxna Mame tamit macha allah ñu ngi koy dëgg yàlla di ko jaajëfal tey dafa xaw a jagadi moo tax mais ñun ñëpp lay soññi parce que amul góor amul jigéen amul filaa bokk amul fee bokk parce que mais li ma ci gën a neex mooy du politique loolu moom moo ci gën a neex parce que dañuy defar suñu gox dañuy defar suñu gox kon loolu yaakaar naa ñëpp dañ ci am mbégte ñu jorul woon sax taxaw ñu ñuy ñun jigéen ñi dañu war di génn avant dara mais nag jigéen ñi moom yaakaar naa utum xaalis moo gën a yomb ci ñoom parce que tey suba bu ñu xëyee fu mu dugg amul kenn ku ne la maa ngi ñëw ñu naan la ndékkeegu ma mais xam naa commencement bi la rek mais yaakaar ni kenn ku nekk yaakaar naa ni seet soxal na la. waaw maa ngi tudd Saliou Diallo.

gox bi quoi. maa ngi tudd Abdou Diouf nekk deuxième adjoint au maire de la commune de Dalifort Foirail par ailleurs le président de l'ASC Manko 4 bu nekk ci gox bi bokk it ci aussi association bi nga xam ne ñoom ñoo taxawal sàmm sunu gox ñoom ñoo xewal bés bii tey. waaw macha allah euh, di santaat yàlla bu baax di gërëm di nuyu son excellence monsieur le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, appel bi mu lancé je peux dire que Dalifort n'est pas en reste. Parce que depuis ce matin, Jotna a déplacé avec l'équipe municipale, notamment le maire lui-même. Nous devons recevoir Madame la ministre de la Pêche au marché central au Poisson. Nous avons fait le bi ñu fa jógee it déplacé nañ dem fekk ci ñu mbokk passé fi nga xamné ne ñoom it ñu ngi ci euh, tunnel bi feulé ci croisement Cambren dem nañ ba fofu xamal leen ne réew mi ñun ñëpp ko bokk bu jagee ñun ñëpp la jagal te appel bi président lancé ñëpp la ko lancé képp kuy citoyen nekk ndaw ak gox boo mënti ne ak foo mënti ne ci réew mi war nga mën a wuyu appel boobu ndax lu baax rek la ak njëriñu askan bi kese la ñu waat foofu jàll cité mairie bi ñu fa jógee may leen nag maay dem koñ ba nga xam ne fa laa nekk ñoom ñoo ma def li ma doon ñoom ñoo tax bu may dégg conseil municipal ba adjoint maire ñoom la kon faudrait que ma profité daw dem àgg ci setsetal boobu di santaat bu baax nag association bi nga xam ne sàmm suñu gox bi ak ASC yeeg ñi fi nekk yëpp teew fi tey jëmmal li appel bi may lancé jeunesse bi mooy nañu am euh, esprit patriotisme esprit républicain ñoo xam ne gox bi ñun ñoo ko mën a defar te kenn duñu setsetal suñu koñ te koñ boo dem ña fa dëkk ñu nga mobiliser wu ànd di liggéey gox boobu kon bu ma ñëwaatee Daaru Salaam Touba moon Mor Matissa déggoo bi nga xam ne gox boobu lay représenté ca municipalité ba ginnaaw Dalifort parce que gox bu ne dañ la seddu benn adjoint au kon bu ma ñëwee sama gox fekk lu mel nii dama koy rafetlu di leen ñaax naan leen vous êtes sur la bonne fois dëkk bi ñun ñëpp ko bokk nañ leen góorgóorlu te xam ne lépp ay jeex kon temps bi ñu fi am lu ndaw rek nañ fexe ba marqué suñu empreinte ci lu baax ci gox bi te gis naa ci ne ñëpp a ngi ci kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di kontaan ñoom bu baax a baax merci beaucoup je vous remercie. di am mbégte ci programme mu bés bi ndax euh, euh, jullit mooy mbokkam jullitam te mbooloo mooy doole al jamaatu rahma al firqatu azab loolu yonent alayhi salaatu salaam wax kon defe naa ne lu mbooloo munut ci ñoom la. Euh, lii nag euh, fi nekk nii suqali suñu gox ñu doon koo taxawal euh, sàmm suñu gox pour defar suñu quartier ba méngoog yeneen dëkkuwaay yi nga xam ne fi nekk wax dëgg fi yàlla lu neex a xoolee doon fu neex a dem le doon ndax fii ñu nekk bokk na ci quartier yoo xam ne fi nekk nii quartier yu desu ginnaaw la quartier yu nekk ci digg dëkk bi la fu neex dugg fu neex a kon buñ ko defarut wala ñu négliger ko ñun ñu nga xam ñun ñoo ko dëkkee war nañoo def premier pas pour ut nimbal ndimbal ba leneen ñu ci fekk war ñu ci fekk te euh, ab dëkk lu koy lu koy defar du ay jinni du ay malaaka ay nit dong ñoo koy defar té ay loxo lan yor ak ay tank ak akam xel kon fi nekk ni def naa ne lu waay jéem boo ko rek ci yow la te gis naa ne am na yaakaar ne tànk yi ñu jógtee nii ñu démarré ak nii ñu jógtee am naa ci yaakaar bu baax a baax a baax ne fu ñu jëm danañ fa yegg ba weesu fa incha allah rabbil alamin waaw euh, euh, kii euh, suñu sëriñ day wax ne toppandoo baaxut mais ndo lu bax mo bax parce que bo gisé eh, am dëkk bu ne wax Rwanda daanaka nu meloon bu ñëk ak nu mel léegi daanaka wuté ne ci ku ko xamone ci xamone ci guerre ci tolof tolof ci fitna waaye ban na mee jamu ak défar ak sétal ku gis dëkk ba da nga yaakaar na sax na neeku ci Afrique lu lepp fi ñëk ni farlu dong dong dong mo maye. pardon wax defe naa nag euh, yu bokk na ci toppandoo yoo xam ne fi ñu nekk bu ñu ko toppandooyee danañu amal njëriñ lool lool lool te bañ a toppandoo loo xam ne safaanoo la